léegi kii salaamaaleykum wa rahmatullahi barkaatu Mara Mara gis nga mbaam bii nii ah, mar moo ko rey gis nga ak gis nga lii nii waxoon naa la démb mbaam yi ñoo gën a loru xoolal lii xoolal doomu mbaam bu ndaw bi fi muy waaj a dee ndax mor gis nga ko waaw doo ajbali ayi wara sokombo panɗo en moolema allah bamɗe ɗi ɗini mbarano mara ko de imde i i eyi léegi soo ci jàppee daal soo ci jàppee daal daa nga am tuyaaba gis nga ak nii gis nga forage bi moo nekk nii dañ koo tëj soo ci daal daa nga daa nga daa def lu rëy